république bu njëkk bu njiital Pastef di Ousmane Sonko jëm ci ndaw ñi rawatina ndawum Pastef moo di jéego bu njëkk ci doxalum nguur bu président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement am ñu mën a jàpp ci discours boobee ci horizon 2035 ab stratégie ak gis-gis boo xam ni nar nañ ko jiital ci seen doxalin. mu di doxalin boo xam ni dina lalu ci rupture maanaam def lu wuteeg li fi amoon loole nag dina jaar ci soppi xar kanamu li nga xam ni moo di koom-koomu réew mi jaaree ko ci mbay mi càmm geeg yu ni mel waaye itam yor-yorin bu mucc ayib alalu askan wi fa mu jaar itam ci ab démocratie bu dëgër lalu ci ab opposition bu taxaw presse boo xam ni dina professionnel xam lii liggéeyam Sonko kon daal dina fësal model politique bi nga xam ni moom lañ nar a jiitee Sénégal. waaye ndax askan wi dinañ ànd ci projet bii nga xam ni fësal nañ ko en tout cas loolee képp moo mën a tax ñu matal yéene bi ñu am ngir askan wi Ousmane Sonko woo na ndaw ñi ngir ñu gën a farlu jëm ci liggéey bi. fii ak ci kanam dinañ xam ndax Pastef am na xam-xam bu mën a tontoo ci ay bëgg-bëggu askan wi mu dib defi bu rëy bu ñu war a matal ci juróomi at yi ñu dëgmal. élection législative yi ñu nar a amal fii ay weer wala fii ak yàtt ak bilan bi ñu jot a def moo nar a définir ndax askan wi dinañ ànd ci seen projet am déet.